bonsoir asalaamaaleykum j'espère que yéen a ngi si jàmm man it maa ngi si jàmm dal leen a jàmm seen seen Like Mobile votre chaîne de technologie tey vidéo bi vidéo spéciale la ñu bëri doon nañu ko demandé ñu fekk ñu waxoon ne di ngeen si ñëw avant ñuy commencer vidéo bi ñu ngi leen ñaan. bu fekkee ne bi mooy première fois bi ngay doog dugg si seen Like Mobile nga bës si bouton abonné bi daal di aimer vidéo bi partager ko activer cloche de notification loolu dina la yombal vidéo boo xam ne du dugal nañ ko yow di nga bokk suñu koy njëkk a gis euh, voilà ñu ngi lay ñaan tamit nga seetaan vidéo bi jusqu'à la fin pour xam lépp lu xew si biir vidéo bi vidéo bi lan la mooy à chaque fois dañuy doon demande man dama bëgg a télécharger benn son mais son bi dama koy bu son du ma ko gis wala son yi nga xam ne dama ko bëgg duma ko mën a am muy son voilà kuréel Hizbut Tarqiyyah voilà parfois da ngay tool foo xam ne da ngay da ngay bëgg ay ay son kuréel Hizbut Tarqiyyah mais doo xam nag ngay def ba tel charge ko wala bu dee da ko bëgg tel charge maam doo mën a doo man am yëpp tey nag dama lay wax benn astuce boo xam ne dina la mën a permettre bépp son bu Hizbut Tarqiyyah boo gis rek di nga ko mën a télécharger sa téléphone gratuitement te lu yomb lay doon xam naa ne vidéo bi dina leen intéressé pour ñi nga xam ne à chaque fois dañuy bëgg télécharger ay son si seen téléphone te duñ xam nag nga koy def tey dama lay wax bépp son isbu boo gis wala bépp son rajas voilà boo gis dañ ko mën a télécharger seen téléphone gratuitement te du am benn problème si sa téléphone léegi première fois bi ñuy njëkk a def bu fekkee ne am nga Google Chrome wala Google c'est la même chose léegi da ngay dem sa Google Chrome ñun comme que Google Chrome la ñuy ëpp li ñu utiliser moo tax dañuy dem suñu Google Chrome mais sa navigateur bépp yëpp bépp navigateur boo boo yore rek nga faa jaare voilà site bi site yëpp fépp la disponible léegi naka lañ def mooy dañuy dem suñu Google Chrome directement léegi ñu xaar suñu Google Chrome daal di tijjee léegi bu tijjee ko dañuy dem si barre de recherche bi voilà maanaam barre de bi nga xam ne fi leen wala recherche son bi léegi naka ngay def mooy da ngay def daaray xasida point com comme nii lañ ko bindee daaray xasida point com léegi pour ma gën a ma gën leen a yombal affaire bi léegi bépp lien bépp fii ñuy waaj a dugg lien yi nga xam ne maam pass yi nga xam ne ñu ngi si waaj a lien bu nekk ak pass bu nekk bon nu war a dugg dinaa leen ko defal si suuf description bi nekk suuf bu nekk boo fa duggee dina la yóbbu directement si site ba voilà pour nga mën faa dem mooy gën a yomb mais bu fekkee ne tam mën nga jaar fii mën nga fa jaar mooy da ngay dem sa Google Chrome nga def daaray xasida point com léegi boo ko defee fii may tijjeeku daaray xasida point com seen site bi moo nekk nii ay information yi mu nii am na daaray xasida euh, courant euh, ku maam maam alxuraan bi voilà am wolofal am euh, rajas comme que ñun tey ban lañ bëgg a télécharge muy son mp3 maam ay son xasida moom lañ bëgg tel télécharge léegi naka ngay def mooy buñ xoolee si troisième option bi mën na ñëw nag si quatrième wala cinquième sans départ rek mais lan moo si am important mooy da ngay xool fi mu la bindal téléchargement xasida MP3 voilà loolu donc mu si am solo léegi boo xoolee fi mu la bindal téléchargement xasida MP3 nga cliqué ko léegi boo cliqué fi mu la bindal téléchargement xasida MP3 nga xam tijjee ko léegi bu tijjee ko moom it information yi nga xam ne dafa nekk foofu dala koy woon ma ngi na la téléchargement xasida mp3 xasida audio xasida wala xasida pdf lépp mën nga ko mais ñun tey ma wax leen ko bi ñu ëppal importance wala bi ñu gën a ñor pour ñu télécharge ko muy ay son isbitarxe léegi nag euh, téléchargement xasida mp3 bu tijjee ko pass bi mooy tijjee ko léegi nag voilà bu fekkee am nga temps mën nga mën mën nga mën nga mën nga liir information yi mu leen dil mu ngi leen dil euh, isbu tarxiya indi la kuréel Mafatihul Bisri andi la andi andi la kuréel ahlu minam euh, isbu tarxiya voilà yooyu yëpp maam information yëpp ma ma gis léegi nag nag ngay def pour tel télécharger ko première bi dañ leen war nag ngay def pour tel télécharger son isbu tarxiya deuxième bi ñu wan leen naka ngay def ba télécharger son rajas bépp boo bëgg mais yëpp nag si même vidéo bi la ñu lay ñaan ngi seetaan vidéo bi jusqu'à la fin léegi dañuy dem fi mu ñu bindal sélection na sélection kuréel voilà première ñu defal sélection cruelle ñu waxal leen ko fii nii yëpp dina leen ko defal si suuf disque description bi pour ngeen mën fa ñëw directement léegi clique nan sélection cruelle Hizbut Tarqiyyah voilà sélection cruelle rek voilà ñoom dañ ko abrégé léegi nag bu tijjee ko passe bi moo tijjee ko léegi bépp son boo xam ne yaa ngi koy wër wala daan ko ko wër doo gis di nga ko trouvé fii ndax fii lu tolloog mille cent vingt cinq ay son disponible na fi pour nga man koo tëlal te loolu yaakaar naa son bi ngay wër euh, bu fekkee ne euh, is buy jàng nañ ko yaakaar naa du fi mën a du du du du euh, doo doo fi mën a maam nu ñu ko waxee maam di nga ko fi mën a gis voilà léegi nag voilà léegi bu ñu tapé son bi yeneen vidéo yi voilà voilà nga xool son yi nga xam ne moom ngay seet voilà même bu bu la bu neexee. bu fekkee ne maam pour liir bi doo doo ko man maam mën nga tàppe nga diglu son bi voilà voilà léegi mën nga tàppe nga diglu son bi voilà même tamit bu bu si gën a gaaw maam tur bi leen ko si bindaal mais fii ma wax leen ko un ba mille cent vingt cinq xasida yoo xam ne ma ngi si biir yaakaar naa fii son boo mënti wër di ko fi tur voilà léegi léegi ñu xool ñun après ñu xool ñun ban son lañ bëgg a ñu xool ban son lañ bëgg a télécharge ñu tàppe xool léegi ñu xool ñun ban son lañ bëgg a télécharge léegi ñu wax suuf léegi gis ngeen son bu ñu bëgg a télécharge léegi bu ñu xoolee automatiquement am na fu ñu bindal télécharge léegi dañ koy cliquer voilà léegi boo cliquer fi mu la bindal télécharge automatiquement. xasida yi ma ngi commencé di dem si sa téléphone léegi boo demee détail da nga gis voilà léegi ma ngi di téléchargé wu si sa téléphone bu pare rek bu téléchargé ba pare boo demee sa euh, sa sa sa sa mémoire stockage voilà da nga fa mën a trouver bu bu fekkee nag da nga am yeneen yoo bëgg a téléchargé mën nga ko cliquer wala muy dem en attendant yëpp day demandoo voilà Euh, yi yaakaar naa yaakaar naa astuce bi dina leen intéressé pour yéen ñi nga xam ne euh, daan ngeen wër ay son wala di xool son bu bëgg te doo leen ko mën a am fii bépp son boo xam ne yaa ngi koy bëgg rek di nga ko fi mën a trouver voilà léegi nag comme que wan nañ leen nag ngay def ba tell télécharge euh, kuréel Hizbut Tarqiyyah léegi dañuy dem si nag ngay def ba télécharge maam rajas voilà voilà bépp bépp sa bépp jànkat boobu boo boo am rek. voilà parfois day am ñoo xam dañuy am ay jàngat ñuy bëgg di déglu seeni son rajo fii nag bépp sa bépp jànkat boo am rek voilà di nga fa mën a trouver ay ay ay ay ay son son yu neex la macha voilà léegi nag euh, boo demee si deuxième option bi muy sélection rajas comme première mooy def sélection kuréel deuxième ngay cliqué rek muy sélection rajas léegi boo cliqué moom it automatiquement euh, bépp son rajas bo bëgg rek voilà yéen a koy déggandoo voilà léegi bépp son rajas boo bëgg rek euh, di nga ko fi mën a trouver voilà comme ni nga ko ni nga ko bëggee voilà yaakaar naa yaakaar naa lii euh, c'est intéressant voilà léegi léegi ñu ñu xool ban son lañ bëgg a télécharge voilà même bu la neexee tamit bu fekkee ne. yi nga bëgg cël sar dafa ëpp diis wala dafa ëpp dafa dafa dafa dafa mat diis mën nga tàqdoo yëpp téléchargement muy dem en attendant voilà léegi nag euh, léegi ñu wër ban son lañ ci bëgg a télécharge léegi ñu xool ban son lañ bëgg a léegi gis na son bu ñu bëgg a télécharge dañuy cliquer automatiquement télécharge léegi bu ñu demee télécharge ñu dem détail voilà léegi bi nga xam ne moom la ñu leen télécharge ak son bi nga xam ne moom la ñu télécharge actuellement ñaar yëpp ma ngi demandoo léegi bu paree ñaar yëpp bu ñu duggee suñu mémoire dinañ ko fa a trouver voilà même bu fekkee na yeneen yoo bëgg télécharge tamit c'est la même chose comme fi nga jaaroon ngay jaar rek daa koy télécharge léegi nag euh, yaakaar naa lii dina leen intéressé bu fekkee ne tamit da nga bëgg a télécharge ay xasida PDF boo demee tamit si suuf disque description bi am na benn lien vidéo bu fa nekk voilà ñu bind si Euh, télécharger euh, vidéo PDF boo cliquer dina la wax da nga seetaan nga seetaan vidéo ba mu jeex da wax nag ngay def ba télécharger ay vidéo ay vidéo si PDF voilà bu fekkee bu la neex man nga am son bi daal am PDF bi loolu yaakaar naa dina leen gën a yombal léegi nag euh, foofu la ñu yemal vidéo bi di leen joxaat di daje ak si benn vidéo ak si beneen astuce ak Lay Mobile ñu ngi leen ñaan tamit bu leen fàtte abonné tey partager vidéo bi jaa ngi jëf à la prochaine